njiit yaa ko mun a stabiliser comment xam nga ni lii la sénégalais di xaar ñi la faloon wóolu la jox la une majorité absolue ñëpp ànd ak yow am yaakaar parce que nekk nga président boo xam te ni judd nga après les indépendances daanaka ñun ñëpp dañoo ne ah kii dina indi lu bees sa démarche la patrie avant le parti ñëpp reconnaître ko ñëpp nangu ko ngay poser ay acte ñëpp d'accord ko yow bala nag laissez-le le temps nag de gérer mm-hmm. mais bañ la bàyyee daanaka li nga xamante ne moom nga doon bañ nga nangu ko ñi la ñi nga doon xeexal démb ñooñu mënuñoo ñoo mën a nekk ak yow tey. c'est vrai ñooñu suuxal duñ la mës a yëkkati dañ lay gën a suuxal. Mm-hmm. nga jàpp ci élection yi nga def sa deux mandats ñenn ñi naan la ay war nga ko mun a gëm war nga ko mën a defaat yow lañ la doon xeexal yow nga ko doon xeex jàpp naan yow kenn war la ci jiitu mooy le 31 décembre publiquement ñëpp di ko déglu le président doit faire face et dire que maa ngi dégg ñu ngi agité un débat troisième mandat waxoon naa ko waxoon naa ko ah, fi man maa ngi def sama second et dernier mandat mm-hmm. en 2024 je vais organiser des élections claires et transparentes et ñi nga xamante ni bi ni jàpp ngeen ni ay sénégalais lañ dinañ leen acquitter seen ay droits ñu bokk ci langue bi wàccandoo ak ñëpp kay gañe nag yàllaa ko xam muy xam muy le président Khalifa Ababacar Sall ak le le président Karim Meïssa Wade nga bàyyi leen ñu wàcc nag xëccoo ak ñi nga xam te ne moo fi nekk ka wóolu dénk ko jox ko mu doxal dama jàpp ni loolu moom mooy démocratie et loolu moom mooy réew et si président Macky Sall da nga dugg par la grande porte mm-hmm. war nga génnaatee par la grande porte. c'est vrai te tolloo nga fenn foo xamante ne da ngay am bay ñàkk. Mm-hmm. soo su toogee benn at yow mën nga ñëwaat parce que sénégalais suñu gisee ne la nga yow la nga mën kan ka la wuutu mënu ko mais soo laajaatee mën nañ la joxat il est encore jeune il est encore jeune mm-hmm. il peut encore se représenter mm-hmm. mais loolu foog mu gëm ko nag foog mu gëm loolu xam ne loolu war a mën a ne la tout à fait Mbaye Sène ñu dugg suñu dernière partie émission wax par rapport ak seen coalition bi euh, di euh, gox euh, bu bees feeñ si landerneau politique sénégalaise composée aussi de jeunes cadres et de journalistes aussi ah en l'occurrence mbay Sène mais man j'ai comme l'impression si élection locale yi dañoo gis benn engagement bu fort si journalistes yi qu'est-ce qui motive vos engagements si langum politique bi mais mais au Sénégal rek la ñuy stigmatiser journalistes bu bokk ci ci ci benn parti politique. Uh-huh. wala bu bokk ci euh, wala ànd ak euh, ñi bëgg a defar seen gox. Uh-huh. Hmm? et euh, aux États-Unis il y a et démocrates. Uh-huh. c'est la plus grande démocratie au monde. su ñëwee nag fii au Sénégal mais à des élections bon il ne se présente pas à des élections mais <laughs> mais il contribue et tey nag journaliste nit la soo gisee sa gox wala sa béréb lañ fay def nga jàpp ni kii li muy def nii baaxul te yow nga dëkk fa nit ñi ne la kat lii ni kii di def yow war nga koo mën a def waaye mais da ngay jéem a dem xool lan nga mën a def. dëkk ci gox mais là tu te retires du métier quand même Mbaye Sène. non c'est pas est-ce que loolu du fausser aussi xam nga defar gox lañ wax. Mhm. waxuñu wax ci nit ki xam nga tey ku ne mën ngaa defar gox tey président Macky Sall tey su ko neexee defar fi nga xam te mooy Mermoz fa la dëkk et donc il est président de la République. defar gox la ñu wax defar fi nga dëkkee la wax. Mhm. nga gis li nga xamante ni normalul war nga mun a xeex nag bañ def fa li nga xamante ni moom mooy normal loolu sax si jaamu yàlla la bokk de. Mhm. gis ni loolu baaxul nga dëkk fa soo ko bàyyi dee gën di bon soo ci dugalee sa loxo war na bokk mun a baax mais wax dëgg fa yàlla war nga mun a jóg nag faire face nag dugal ci sa loxo et ci foofu lañ lañ lañ lañ jàppee nekk candidat. Mhm. pour indi lu bees. mais finalement vous vous êtes nekk si derrière ki nga xam ne mooy Ndiaglaax. pourquoi ce retrait aussi. Ah, xayam dégg séeréer uh-huh. gis nga gis nga nit ku bañ la jiite doo jiite kenn ci këru uh-huh. te tey ma jiite leen yaa ñuy jiite moo ko dàq gis nga la personne bi ngay wax uh-huh. muy njàglaax et je dis même l'homme intègre loolu laa ko tuddee man gis nga il a su fédérer des personnes ressources ñoo xamante ni ku ci ne ci gox ba nga ne war nga fa mun a laaj dara ñun ñëpp teer suñu ambition dem ànd ak moom que ce soit des présidents de mouvement des femmes de valeur des hommes qui représentent beaucoup ci seen ay gox ñoom ñëpp rangé wu derrière Ndiack Lakh y compris man mii ma modeste personne ci discours nit ki ci xam-xamu nit ki ak ci expérience nit ki faut pas oublier que ni conseiller municipal la ci mandat bi mujj Ndiak était conseiller municipal au niveau de la commune de Baba Mbir mu Sacré-Cœur te yemu ca di def nag ci gox bi xaarul élection am wala élection di waa ji ñëw mu koy def déedéet nekku ci ay achat de conscience fa war a def dara mu def fa dara mais kooku dafa neex a àndal mais Mbaye Sène ñëpp di naan pourquoi Mbaye Sène Mbaye Sène le grand journaliste Mbaye Sène l'international comme ni ñu koy wooyee. Mhm. Mhm. y a d'autres euh, partis de l'opposition yoo xam ne fu mu toll nii mën nañu wax ne ñoo ñoo ñoo yor buzz bi. Mhm. Yewwi Askan Wallu Sénégal pourquoi votre choix sur euh, Ndiack Lakh aussi. yor yor yor buzz mooy lan mooy kuy taxaw di saaga loolu kuy taxaw di achat de conscience loolu mooy yor buzz bi. mais non mais gën a am représentativité. pourquoi pas on a si euh, benn kii coalition bu mel ni Yewwi Askan Wi. xam nga man lu ma gëm. Uh-huh. mooy ku gën a mën a liggéey ak ku gën a am projet bu clair man kooku laa gëm te gëm naa ne ci ñi nga tudd ñun ñëpp Ndiak et Assane ñoom ils sont à 5. ah boo moo gën a euh, am maturité politique wala sax moo gën a man liggéey ku mel ni comme Ousmane Sonko wala Khalifa Ababacar Sall wala sax le groupe euh, maître wa Abdoulaye Wade. non non non Khalifa Ababacar Sall du moom moo présenté wu foofu Ousmane Sonko présenté wu da ngay naan yeewi askan. mais mais ña les boss. ña les boss c' pas eux qui gouvernent xam nga loolu mooy différence bi. <laughs> c' est pas eux qui seront gis nga tey c' est pas tey Ndiak mi nga xamante ni ñu ngi koy tudd je vous le dis fois. Mm-hmm. sa dommage que ni yow da nga da nga fréquenté wul nit ki. Hmm. sa dommage que ni da nga da nga da nga wàccul xam kan muy nit ki gis nga intégrité hmm? calme olympien travail sérieux soo koy wër ci nit rek soo demee jàppal Ndiak Laax indi tey. mais Ndiak Laax il faisait partie des cadres de Rewmi non. il faisait partie de cadres de mi fi ku fi musul bokk dara Macky Sall mi tey fu mu bokkoon bokkaloon APR bokkaloon PDS génnul dem APR créé parti boppam. Barthélemy Dias bokkuloon parti socialiste léegi génnul parti socialiste je peux en citer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des e kan moo bokkuloon fenn nit ki tëboo tëb rek màgg di di nga am un mois une semaine di nga am deux mois trois mois un an cinq ans ba di ngay a mun a tànnal loolu fi nit da nga a tëb tëb rek a nekk déedéet ah. man mi di wax ak yow nekkoon naa ci beneen parti mais bu ma demee ba xam ne loolu du luy jëmale réew mi kanam dama génn ànd ak koo xamante ne bi jàpp naa ni incha allahu rabi au soir du 23 janvier suñ ko tegee à la tëdd de la commune de Baba Mermoz Sacré-Cœur mais ça sera ça extraordinaire. mais Mbaye Sène est yaakaar nga ni carrément choix boobu wala sax concurrence bi aussi du du parce que voilà euh, y a des ténors qui sont qui qui qui, qui sont là-bas des, des concurrents assez sérieux quand même. Mm-hmm. des concurrents assez sérieux. y a Voilà, okay. Barthélémy Diaz qui mm -hmm. doit présenter son bilan avec euh, la manière de Yewwi Sénégal aussi. Mm Il y en a aussi d'autres yoo xam ne bilan lañu cité aussi voilà. xam nga xam nga xam nga tey. lan moo tax waaye commune Mermoz Sacré-Cœur mhm. war a choisir Ndiaglare. de par son sérieux et de par aussi son programme qui est